jogante baccalauréat Korea bi dañu xool que ne ñun moment bi ñuy def bac fii ci Mbacke Bawal benn centre moo fi nekkoon donc am ku daan joxe candidat yi ñu daan añ léegi nag ñun si loolu lañ inspiré woo chaque année bi mooy cinquième édition bi Mbacke six centre moo fi nekk ñuy toggal centre yooyu six centre yëpp dañ leen di toggal centre bu nekk ñu yóbbu fa añ comme nii pour jàppale élèves yi pour ñu bañ dellu seen kër yi parce que di ñëwaat day metti don ñu may leen conditions yooyu ñu toog fii ñu indil leen lekk indil leen ndox ak café loolu moom moo waral ndaje bi waaw comme ñu koy defee rek képp kuy kilifa te nekk ci département bi wala si commune bi donc yëg nga ko yëgal nañ la ko donc ñi si war a jàpp jàpp nañ donc àdduna moom noonu la bindoo ñii dañuy def ñii duñu def mais li ci am solo mooy que ne ñu xam ñan lañ koy jox ak ki koy joxe mu joxe ko rek ngir yàlla c'est ça qui est important parce que ñun ñu koy def ñun ñoo njëkk a yëkkati suñu poos def ba pare wala ñuy laaj quoi kii que ce soit donc moom moo tax dafay nekk loo xamante ni dañ ko jàppe xidma ñun lañ ko jàppe donc def loo xamante ni ku nekk da ciy gis boppam donc moom moo tax ñun ñu def ko mais am nañu si bari ci participer donc bu ñu limee rek koo limul day mer mais ñu ci bari def nañ ci seen xaalis ñi joxe nañ ay nag ñi joxe seen xaalis par ay Wave ñi par Orange ne mais kilifa gu ci nekk jàpp na beneen bi mooy commune bu Touba aussi tam tam jàpp na ci mm. waaw mais commune bu Mbacké moom ba tey jàpp ci defu ci dara noonu la demee donc beneen bi mooy que ne maa ngi ànd ak ci sama euh, ndeyjoor ni président des parents d'élèves donc ànd ak Mout Diop Dia nga xam ne nii moom moo jiite marché bu Mbacké bi ànd ak euh, Sarr donc bi nga xamante ni ay mouvement associatif la parce que togg yi association de jeunes yi ñoo koy togg ci sunu bureau lañ koy toggee si sunu localité bi ak mouvement yi donc ak daayira yi ñun ñooy dajaloo donc durant li ñu am ñu def ko génne ko sunu kafaka ak li ñu yeneen kilifa yi jàppee volonté yi ñu jël ko def ko journée tey bi nag bi ñu rey un certain Baara bi nekk euh, Média Afrique moom moo ko joxe comme ni ñu koy defee sa da ngay jékki-jékki rek kenn indil la dara et xéewal yi tout cela ñu ko ciy remercier de passage aussi ñuy remercier beneen soxna boo xamante ni mi ngi dëkku Daaru Salaam ñu naan ko soxna ma Anta Dia ko ciy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal nag euh, képp koo xamante ni daf ko ci sa xaalis ci ci bi kenn a salir sunu del parce que lii ñuy def nii benn mag bu ko daan def bu tuddoon Cerno si nekkoon député ñun nekkuñu député amuñu salaire amuñu dara moom benn centre la daan restauré ñun juróom benn centre la ñuy restauré la ñu jox ñu añ te li ñu koy def dañoo xool que ne yi majeure partie Touba la ñu jóge ak ci yeneen village environnant yi ñooñu mënuñu leen bàyyiwaat ñu delluwaat seen kër parce que jaar nañ ci bac aussi loolu moo tax ñu koy def képp ku ci def sa xaalis xamal ne sa bopp nga ko defal yàlla moo lay fay lu sëriñ may moo lay fay du ma sàmba ma dem te yaakaar naa fay suñu borom moo ko doole comme ni ma koy waxee daay rek ñëpp si jàpp donc def ci seen doole def seen chapeau à Croix-Rouge bi nekk Mbacké parce que heure bu ñuy togg seen éléments yi dañuy ñëw campé ci conseil bi dañ fa la ñuy fanaan duñ dem fenn lu ñu leen wax def leen ko loolu la ñuy def lu leen bàyyi leen ko ñu bi ma xëyee ci suba am na quelques centres yu ma jot dem visiter pour xool da xam ndax amul ay jafe waaye li ñu gisagum de dal na suñu xel en tout cas amul fenn fu ñu nga xam ne leen nañ fa ay jafe-jafe malgré que situation bi situation pandémie la. mais vraiment waxaguñ ñu daal fi nga xam ne am na ay jafe-jafe ba nga xam ne war ne jafe kon loolu ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax waaw sant ci jàpp ci fànn boobu xëy na mesures yi comme ni ma la ko waxee rek ñu ci bëri ëtt ci autorité yi parce que dañoo def réunion euh, préparation examen yi am ay mesures yi ñu jëloon euh, yaakaar mesures yi mu taxoon nag moo doon xal de xam est-ce que ñu ngi koy respecté wala déet waaye comme ni ma la ko waxee vraiment dégg demaguma fen fa nga xam ne daal wax nañ ma fa ay jafe-jafe kon jàpp naa ne euh, mu ngi dem ni mu war a demee waaw loolu daal laa jàppagum pour le moment. waaw loolu xanaa di ko rafetlu rek di leen gërëm di leen sant euh, loolu moo gën a waral sax suma taxawaay bi fii ñu taxaw nii parce que dama ne daa ñëw gërëm leen sant leen félicité leen encouragé leen ñaanal leen ndax affaire togg ci waa ci bésu examen dafa dana nekkoon tradition fii ci Mbacké. parents d'élèves yi ñoo ko doon def ci tàmbali ba comme ni mu ko waxee léegi ñuy dem bu fekk candidat yi daaw ñu bëri noonu centre yi daaw ñu bëri noonu bi mu demee dem ba mu commencé am ay euh, mu commencé bëri euh, Moussa Sakho dugal na ci loxoom en tant bi ñu ko ciy remercier moom tamit ci wàll boobu ba mu paree euh, honorable Thierno Sy def na ko fi tamit ay at ah loolu tamit ñu ko ci remercier di ko ñaanal yàlla gën koo yokk mais ba depuis boobu léegi. conseil de la jeunesse ñu ñu ngi koy def man nañ kon mën nañ ne ñoom jël nañu relève bi te lii ma ci gën a kontaan mooy dañoo jël relève bi def lu ëpp li ñeneen ñu daan def ndax centre yi dafa gën a bëri élèves yi di gën a bëri jafe-jafe yi kon gën a bëri parce que li ñuy seetlu mooy ñi eh, ci examen yi presque ñi jóge Tuubaa ñuy ëpp ci élèves yi ci nawet la nekk donc risque am na même su fekkee ne yaa ngi dem si kër añ taw mën laa ngelaw mën laa ta euh, euh, bloqué foofu dañu da nga am retard kon su fekkee ne am na ku la dimbali ba nga mën a toog ci biir école bi ba euh, ba ngoon nga soog a wàcc kooku mënuñu def lu ñuy gërëm ko sant